asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a safoo seetaan moo naysee tey nag ñoo ngi fii si cité Mame Dior euh, bi nga xam ne moom la ñuy wax bokk gox bi nga xam ne moo bokk si euh, zone 13 maa ngi leen di bàyyi sama naataango Babacar mu yeggale leen si des. waaw mbokk ya xarit yi waa Sénégal comme ni ko gisee tey nag ñoo ngi fii si Kër Massar fi nga xam ne moo di Mame Dior seeti waa waa bokk gox fi nga xam ne moo di zone 13 tey nag yéen a ngi seen quatrième quatrième bi nga xam ne moo di moo naysee avec waa bokk gox e gars yi seetaan leen ngeen xool la leen waa bokk gox indil e gars yi let's go euh, président depuis kañ nga nekk si bopp équipe bi depuis bi mooy sama troisième année daal ndax mandat bu bees la comme nawetaan ni ñu koy defee chaque quatre ans dañuy renouveler instance yi mais bi ñu renouveler instance bi mujj ba tey maa nekk si bopp équipe bi mais <laughs> dañ koy gis jeune xale bu ndaw nekk président d'ASC peut-être dina jaaxal ñu bari mais tamit du président se yoo xamante ne tamit lépp day reposé wu sa kaw peut-être dañ nekk yàgg nekk si ASC bi e rampe nekk secrétaire général adjoint nekk secrétaire général peut-être dem ba gars yi wóoluñu xalaat ne war nañ ko mën a gérer te dañ nekk si koñ boo xamante ne nit ñi dañuy ragal a jël poste yi ñu dénkuñu ko ñun tamit am ñeneen mag yu nekk suñu ginnaaw du ñuy jàppale ah moo tax ñu fal ñu président tam ñu nangu ko nekk si di liggéey daal boobu ba tey kon bi ren mooy suñu troisième année ñu nekk président ASC bi. nawetaan dèjà jeunesse am foo la. mooy vacances yi ñu dajale élèves yi. Mhm. ak ñi nga xamante ne année année scolaire bi yëpp dañuy liggéey. Mhm. pour ñu mën a épanouir ñun dèjà objectif mooy dajale élèves yi pour ñu am pour ñu def li ñu bëgg mooy mooy football. Mhm. en l'occurrence les joueurs. ñun nag euh, vu que 2016 ñoo jël coupe bi 2017 on s'est arrêté en quart de finale daaw ñu ngi am demi finale. ren objectif bi mooy dem final loolu la ñuy xaar si suñuy joueur et je pense que ni wax lañ leen ko ñoom xam nañ ni euh, pour foog ñu progresser que daaw on s'est arrêté en demi-finale donc ren dem ñu def dernier marché bi mooy final loolu daal la ñuy xaar si joueur yi. bokkuma si ñi taxawal ASC bi waaye bi ñuy taxawal ASC bi assemblée la ñu pekk ndax suñu papa yi ko taxawaloon <laughs> waaw fii la ñu fekk daal ndax bañ tamit ñëw nañ waxtaan ak ñun dox nañ si ndax bañ koy dox ñun bokk nañ si ñu ko dox. su ñu ko gaamee bokk nañ si ñi ko dox ndax nit xalaat na ko ñëw fekk ñu toog ñu adhéré si idée bi ba pare ànd ak ñoom dox ko ba ñu mën a am ASC. léegi yow lan moo waral bokk gox bokk gox lan moo ko waral. waaw su ñu bokk gox nag ndax dafa am ñetti koñ yu ko séq ndax fi ñu nekk nii fi terrain bi nekk moom mooy cité Mame Dior am na ñu nekk nii suñu ginnaaw ñoom ñooy Kër Bakka. am na cité Conachep ñoo nekkoon fale si kaw ñoom ñett nañ xooloon ne suñ leen boolee comme que ASC dafa métti def benn koñ kese ASC ndax fii nii cité Maam Dior presque trois cent et quelques maisons la eggul quatre cent maisons nga xam ne bariwuñu woon boobu kon bokk ko cité Maam Dior kese day métti mais initiative bi nag fii la jógee waa Maam Dior ñoo d'accordoon ñu ne dañ bëgg créer ASC mais pour ñu mën a am ASC bu am doole foo jaar ñu boole si yeneen koñ ñu gis gisi waa Kër Bakka dem gisi waa Konachep boole leen dem idée bi rafet trop si ñoom tamit ñu nangu ko léegi ñu ñëw assemblée général bi ñuy xalaat ah benn kilifa xalaat ne comme que ñetti koñu ko seq comme que gox yu bokkul la tamit ñu boole leen ñu tuddee ko bokk gox lool moo indi tur bi te boob ba tey si tur boobu na ñuy woyee. lépp quoi man nag maa ngi tudd Sadio Sakho maa waaw mais avant boobu yoroon naa cadet 2006 2007 dem ñaari yoon final ñu ñuy gagné quoi après si laa ñëwee 2014 jël équipe bi 2014 laa jëlee ren équipe bi quoi waaw noonu la demee. kon dafa mel ne 2014 mil yor nga yor équipe bi ba 2019 nii. oui waaw ba 2014 ba 2019 laa yor parce que ñun boo xool fii continuer la quoi parce que boo leen teeloon ñëw sax di ngeen gis ne di ngeen gis peut-être moom ñoom lañ war njëkk promouvoir parce que booy xool fii booy bëri suñu capitaine bi man maa ko yoroon petite catégorie xam nga ñu pharmacie après si ñoom ñoo football cadet après ñoom ñoo ñoo football senior continué la quoi ASC bokk ko continuité la quoi waaw waaw moom je pense que ni du rafet surtout si nooy daan parce que ay ndaw ñooy daje mais nag ku wax ndaw rek wax fug wax euh, inconscience surtout je pense que ni ñi ñi ñu ëpp si ASC ñiy woote violence mooy ñi nga xam ne xamuñu li ASC bi di daj parce que tey jii chaque fois man dama koy wax ñun ñooy sonn ci ASC donc du ñu nangu ki jugee fële koo xamante ni du ci def dërëb ñëw di sonal ASC bañ koy amande ak yooyu je pense que ni campagne bu campagne bu yaatu boo xamante ni euh, en euh, en partenariat avec la zone avec les ORECAV mooy suñu ORECAV ñun en l'occurrence ORECAV de Pikine lañ bokk ñu ngi ciy xeex di signaloo gars yi charte di def ay formation pour wax leen lan mooy lan mooy lan mooy objectif u nawetaan mooy unir déjà du désunir parce que tamit violence moom mooy mooy féewale nga je pense que ni chaque fois ñun dañ siy waxtaan ak supporters yi surtout bu ñu nekkee bu ñu nekkee bu ñu nekkee entraînement parce que stade dool match doo leen tal mais match ku ci def leen loo xamante ni boo indee violence rek ñoom arrêté ñoom dañuy dañuy doon def dañu koy arrêté parce que match boo may xeex arbitre da koy arrêté donc jour yi nga xam ne dañu doon football dootuñu def lu ñu bëgg xam nga nawetaan moom affaire koñ la te affaire koñ des fois xool dina si jóg ndax werante yi si koñ bi lay commencé ndax di nga dajeeg équipe boo xamante ne yéen ñaara dend kon ngeen commencé werante si koñ bi bés bu ngeen demee kenn gañe xool yi yéeg bañ nañ ko trop nag neexuñu trop nag mais nag balance si nawetaan même suñ ko buggul am na fi mais nag yàlla dafa def ne ñun duñu ASC bu violent bés boo demoon si zone bi sax nga laaj ko suñuy match lu muy am coow bariwul am nañ derby di football mais identifié wuñ ñu si loolu yàlla mu ngi ñuy suturaal boobu ba tey nag ñu ngi fubal ñu ngi dem ñu ngi ñuy gagné ñu ngi gagné mais identifié wuñ ñu si violent mais tamit mus di nga fubal ba pare xeer juge feneen dal sa jour loolu mënul dal si nawetaan nawetaan lay amee loolu noonu mës nañoo dal am na jour ñu pare fubal ñu xaañ ko xeer ñu yóbbu ko stade même 2016 bi ñuy jël coupe fubal nañ ba pare suñu entraîneur waa koñ bi di feetu ñun dirigeant yi sax feetuwuñu ndax dañ hôpital la ñu fekk ndax lan suñu entraîneur bi ñu àndal nañ gaañ waaw comme li mooy couvrir rek mooy la nga xamante ne ñun ñëpp xam nga ñun ñëpp ñoo dañoo gëm suñu ay ASC mooy loolu dañoo gëm suñu ASC dañuy jàppalante dimbalante xam na ñu ñëpp ñoo bokk objectif te suñu objectif mooy lan dem final jël coupe bi moo tax xam nga du du metti quoi dañuy jàppalante man la keneen ak keneen équipe boo gisee dañ naan man maay capitaine mais ñu ñëpp ay capitaine lañ ay leader lañ. mën nañ xam ba nga commencé jouer fii ba tey ñaata yoon nga fi jël coupe. waaw ba ma fi commencé jouer ba léegi benn yoon laa jël coupe te c'était en 2016. 2016 nga jël coupe léegi yaa ngi nii instant bi yaa takk capitaine bi je pense que bi ngay bi ngay bi ngay jël coupe boobu nekkoo woon capitaine. non ba may joué 2016 di jël coupe boobu mën ak samay grand laa fekkoon bokkoon naa ñu gën a doon ci équipe bi xale ñuy gën doon xale ci équipe bi. ñu moom suñuy supporter moom fair play lañ leen xamee dem supporter yàlla may ñu ndam ñibbisi. dama ne jour match bi moom lu may ni ñaan mooy nañ dal rek ñi si terrain bi xam nañ lu leen war. en tant que ancien joueur yow tey jii qu'est-ce que tu as fait pour l'équipe lan nga def pour équipe. bon mën nañu en fait am nañ fi benn palmarès bu riche parce que boo xool football moom li ci gën a intéressant mooy lan jël trophée te ñu ñoo ko fi ni pour la première fois benn coupe la ASC bi am ñun ñoo ko fi indi c'était en 2016 bi. léegi selon yow lan moo tax gars yi choisir la comme capitaine. bon ah choix bi moom ah peut être xanaa ñoom laa koy laajaat peut être xam nga des tamit dañu xool euh, capitaine ci comportemental daf am solo quoi en fait te benn instant bi nii coach bu xasee ba classe ay joueurs am dugal ci biir terrain bi am na si yenn détails yu bari du ko mën a gérer de ce fait euh, capitaine bi mooy mën a gérer yenn yi bon yenn aspects yi quoi en fait parce que ci côté comportemental moom moo ci gën a mën a veiller yenn joueurs yi bu ñu wala yenn maanaam tamit dinañ ay ay moromam quoi en fait waaw loolu la loolu loolu loolu la quoi en fait. léegi yow capitaine ñaata at nga nekk ci équipe bi. bon ma xool 2008 laa joué ah cadet 2009 ma joué senior jusqu'à jusqu'en 2018 léegi nag cette année ci laa arrêté quoi en fait. waaw suñu waaye nu ma jëloon yow comme yow comme d'habitude rek ñun moom chaque jour fii ñun continuité la ñun bu ñu ñëwee fii suñu même joueur yi benn moo ciy yokk ñaar moo ciy yokk waaw bay xool ñun suñu équipe noonu la. chaque jour noonu la amul booy xool ren benn zoo bu tudd Amène Zoo ak petit BMG ñoo ci yokk mais même effectif lañu yor kon léegi ñun souvent rek suñu kii suñu atama dañ koy répété rek souvent nag kii la ñuy def sax conservation de ballon la ñuy gën a def parce que lépp dañ ko liggéey depuis temps booy lépp dañ ko liggéey fii mun naa limal ay booy yoo xam ne ça fait dix ans ñoo leen yor kon suñu football lu si bëri conservation la moo tax bu ñu demee terrain lu ëpp suñu bal ñu ñoo koy yor non à chaque fois ñun suñuy dem dañoo gëm suñu bopp ñun ASC Bokk Gox moom ku ñu xam-xam ne dañoo gëm suñu bopp dañuy jouer sans pression gisoo soo xoolee si biir terrain bi ñun ñu ñooy équipe bi nga xamante ne dañuy kaf dañuy foo dañuy ree si terrain bi même match lu mu critique critique wala lu mu lu mu metti metti gars dañ koy gérer amul problème ñun moom fekkee ay wóolu sama équipe moom wóolu naa la pour cent. bon affaire lan la woon affaire de stade gars ñoo bëggoon football ñoo bëggoon football si mais 2015 nawetaan amul dañoo entraîné nawetaan amul. après 2016 la ñu am mooy suñu premier trophée mais avant boobu 2012 finaalu nañu benn jour boo xam ne moo nekkoon Douana ah, Cheikh moo yoon gars yi dem nañ ba final Cité ay na ma ñu dóor ñu. 2004 2014 dem nañ demi final waaw mais 2016 la yàlla dogal ñu am coupe ndax 2014 nañ def suñu premier demi final dem ñu gagné ñu demi final mais 2000 non 2012 nañ def suñu premier demi final 2014 ñu amaat demi final mais yàlla def 2016 nañ dem. jàll cadre demi-finale après dem am coupe loolu mooy palmarès ASC bi xalaat naa su ma juumul. booy yi nga xam ne ñoo ngi ñoo ngi ci ginnaaw di xaar ñu leen di woo pour ñu ñëw jàpp si ASC bi ñoom mun nañ ñëw rapproché wu ñëw dimbali ñu dimbali ñu ñu mën a feesal stade bi dem dóor Arafat ñibbisiwaat yëngal koñ ba mu saf sap ñu xam ne Mame Dior ñëwaat na te ren coupe bi la ñuy waaw mbokk yee xarit yi yéen ñu safoo KS TV yéen ñu baaxoo di seetaan moo Nice ba léegi ñooy ànd ak yéen si li nga xam ne moo di Nice quatrième numéro tey ñi ngi àndoon ak ñi nga xam ne moo di waa bokk gox fii nga xam ne moo di zone 13 bu Kër Massar et mbokk yi xarit yi c'était moo Nice avec Babacar Dior et Anti Sart Yachou ñu leen jox jox dig daje ba beneen émission si beneen numéro next ah et eh, gars ba beneen yoon ak yeneen ASC si yeneen zone jaa ngeen